mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat di leen gërëm bu baax waaw di wax bisimilah nag comme bisimilah loo ko tàmbalee mu egg <laughs> balaa wax bisimilah balaa ñoom Assane Diouf ak ñoom liiru Diane di di di dagg sama live bi ah trent minutes chrono <laughs> di leen nuyu bu baax a baax di leen ziar bu baax di nuyu ñëpp di leen ziar di am mbégte teewaat fii ci ndimbalu suñu borom ak kattanam di sant yàlla bu baax. mu ñu may kattan ak wérug mën a teew kon ñëpp ñuy teewlu ñu ngi leen di nuyu dellu siwaat eh, ci 30 minutes eh, crono di gërëm El Hadji Modou Diouf Abdou Top ak Ablaye Diallo ak Fallou ñuy jàpp ci régie bi di ko wasaare ci jaww ji ba ñëpp mën cee jot tey jii ñu fas yéene ñëw ci actualité actualité bi nag macha allah noonu la. ça veut dire lii mooy une démocratie démocratie bii dund mooy opposition bi di dóor fii pouvoir bi di dóor fii ñii di lal ñii di lalli ay pexey politique politique bi ñu koy xam loolu la ay pexey politique te loolu mooy démocratie ñu bari ñu ngi naan Sénégal politique politique mais lii mooy démocratie xam lan moo dul woon démocratie mooy li fi xewoon démb Macky Sall doon ko def maanaam coup de force coup de force coup force ak coup d'état bokkul coup de force mooy nga bëgg a jox dara askan wi imposer leen ko mooy damay def troisième mandat dama war a imposer askan wi troisième mandat loolu démocratie dama war pour élection yi dama leen koy imposer ay bakkan rot ci dama war a fexe ba Ousmane Sonko du bokk dinaa ut ay pexe teg ko jaare ci yoon ak takk der yi ak ay pexe politique les pratiques machiavéliques de Macky pour mbir yi bañ a dox loolu nag du démocratie mais coup de force la démocratie mooy li nga séq ak peuple bi peuple bi di ci gis seen bopp maanaam lépp loo ci def nga tàggu leen lépp loo ci wax nga yëgal leen ko looloo tax tey jii discours président de la république di Sénégal am solo du nu dikk ci li la wax war na kaa wax ak waxu ko boobu dañ koy ànd ak les analystes bàyyi leen ko la classe politique te bu ñuy wax politique dafa ànd ak débat Pape ak Cheikh daan nañ ko wax wute mënta ñàkk naam waaye buñ waxtaanee juboo le président c'est le père de la nation saa ku ko sentiree wala mu yëg ko wala jamono laaj ko war na génn wax ak peuple bi parce que moom mooy le seul interlocuteur du peuple maanaam moo jaboote ñëpp amul yaay ni ko Babacar Justin di waxee amul baay amul ndijaay amul doom amul xarit amul mbokk nga dégg ay journalistes maanaam leen les oisons de mauvaise augure ñu taxaw ñu ne non président le 4 avril 3 avril la war a génn wala 31 décembre loolu la ñu tàmmaloon wala président bu waree génn rek daf ñu war a wax day pousse élection wala day yokk mandaam comme ni ko Macky Sall doon defe mais les questions de leur noonu la nga koy waxee les questions essentielles daa am foo xam ne le président de la République bu fa tolloo dafay rendre compte son peuple rendre compte son peuple mooy ay doomu Sénégal faatu na dee ci géej gi nga dégg ay nit naan la la président waru woon dem Léona wala Médina Baye loolu lay wax de dafa waroon a njëkkee Mbuur loolu la lay wax te ñooñ di ko wax fi leen doon toog naan lu tax demul Médina demul na dinaa ci dikk ci kanam tey mu dem Médina ak Léona ñu ne non dafa waroon njëkkee Mbuur xale yi di dee 2005 ba léegi ñu ngi dee ci géej gi. nguuru Ablaye Wade Macky sàll ba ci Jomaay xale ya ngi dee ci géej lan moo leen yóbbu lu tax xale yi di dem lu tax leneen ak leneen bàyyi naa ko boroom xam-xam yi mais lu mel noonu bu amee le président de la république waxuma la mu jug dem mais il doit parler à son wax ak ñoom na leen bu ma sañoon ngeen toog. lii ak lii ak lii delloowaat espèce espoir delloowaat yaakaar parce que xamalu tax Diomaye ak Sonko war di wax parce que bu nu waxul ñu waxal leen wala bu nu waxul ñu yàq seeni wax Sonko dem na fi Touba wax ak xalif général des Mourides génn kenn xamulum wax ñu yàq ay waxam ñu waxal ko Sonko ak Diomaye dañ doon xeex ci pale bi dégg nañ ay nit yu ko wax te amuñu ci leen leer fekkewuñ ko baleen leen wooye ci kanamu yoon mënuñu ko indi firnde mooy boo waxul da lay waxal kon waxal kon wax ji président de la république yu wax dafa am solo parce que ñin fi xamoon démb ñu ci mel na Macky duma delluwaat ci Ablaye Wade Macky Sall mars mille vingt et bi muy génn di wax xamul lu ko yëkkati woon. kokkali sénégalais yi ak napp leen ak fii gaynde gi nelaw kenn du ko yee kenn du ko lii heure bu mësaan ñëw pour tëkk sénégalais pour defante ak sénégalais yi la Macky Sall musul génn parce que xale yi ñu ngi dee ci géej gi musul génn parce xale yi ñu ngi dee ci gi Macky Sall musul génn parce que ñu ngi rey doomu sénégalais yi non alors que lu gën a fort bakkan ci àddina amul mooy le droit à la vie maanaam nit dafa am droit dund pourtant le président de la république bi fi nekkoon ci li Pape Alé Niang sa wax mooy mars 2021 bi ñu fi rey ay gone le président de la république Macky Sall bi maître Sidiki Kaba defee commission d'enquête dem jëbal ko ko lu mu ko wax mooy tegal nii parce pour moom dee gi xale yi dañuy dee pour ñu napp leen kon moom boo gisee amul enquête amul dara moo ci tegoon tànkam loolu Pape Alé mos na ko junj mais boobu neexul woon wax neexul xóotal pour walla ni xol bi Macky Sall yor ak defante gi muy defante ak sénégalais yi day defante bay defante ak ñi dee alors ko benn sénégalais bu faatu war na jar le président de la république génn wax ak askanam. delloosiwaat leen yaakaar parce que mënuñu xeex en pouvair cinq mois mu def ko fi après les cinq mois ñu gis xale yi tànk yenu jëloon di mbëkk gàlloo yi dem tànk yooyu du continuer léegi nag il faut arrêter ça te arrêté bi ci njëkk mooy ki ñu tànn fal ko te soon ko waxoon ni xale yi bu leen dem toog leen bu ñëwee mbir yi dinañ ci taxaw dinañ ci jóg alors que man dama gëm ni Sénégal buñ ko defoon ba mu nekk Eldorado dàq ci àddina bi gën fee neex nit ñi dinañ continuer di tukki di dem ci géej gi dafa dee man loolaa gëm parce que xamul tax nit la suñ borom nattoo tukki am ñoo xam nii tukki sax te buñ fa am dara maanaam li am fii moo gën mais suñ borom dalay na nattoo tukki man gis naa ñu nit ñu mel noonu ce matin damay waxtaan ak sama benn xarit c'est un franco-sénégalais mooy wax ni misère bi yenn Sénégalais yi di dund en Europe maanaam dunoo mënatul ñibbisi mais ni nekkoon Sénégal moo gën ni nekkee en Europe dima ci expliquer yu bari ma ne ko dinaa la fi woo sax ñu waxtaanee ko kon tey jii waxuma la mbiri politique mais lii rek war na tax le président de la république génn wax ak sénégalais yi delloo si war yaakaar parce que nag lu tax xale yi di continuer di dem nga gis ay nit di sur surévaluer le nombre de moire même bu dee benn ëpp na mais da ngay gis ñoo xam ne dañuy yokk lim bi pour créer la chaos pour wan ni nguur gi dañoo échec alors que en cinq mois kenn mënul ma gëm loo man ci àddina ni nguur gi dañoo échec parce que en cinq mois nguur mënoo ko ci xayma nattu ko ci ci réew mun yàq soixante ans loolu nag moo war a tax la président de la république génn wax li ñu fi fekk Sonko ak Diomaye dama war di génn di communiquer wax li ñu fi fekk bañ a sàng sutura kenn wax leen ni 60 ans yi Sénégal yàqu 12 ans yi mag mag yàq ko yaxeet démb damay wax benn waaye ma ni ko réew mi dëgg daan dafa yàqu lu yàqu sax mën nañ ko defaraat réew mi dafa sax kon mais waxuma la ci 5 mois de ci 5 ans sax Sonko ak Diomaye mënuñu ci xeex immigration dama koy wax dem wax naa ko ci tàkk show mënuñu fi xeex inondation mënuñu fi xeex mbiri emploi des jeunes mënuñu fi xeex accident yi di am parce que daf ci am loo xam ne nit ki la état nag da ci am wàll parce que nit ki dafa am droit wu dund dafa am droit ñu sàmmal ko dundam parce que les personnes et les biens ci loxo nguur la ñu ne nit ki bu juddoo ci réew dañ ko war a sàmmal jëmmam sàmmal ko alalam loolu la ko loolu lay doye nguur kon tey jii Diomaye avec son tempérament bu génnee wax ak sénégalais yi ci dal gi ci teey gi ci yaru gi tenir leen un langage de vérité man nag bëgguma ay raay raayal wax leen ni lii moo fi ne toog leen lii ak lii géej gi du yoon léegi nag bu boobaa ñu jël ay mesures na leen nag géej gi kaaraange gi dinañ ko yokk convoyeur yi yóbbu xale yi di business ci seen kaw ñu xool na la leen jàppee mais loolu lépp bu ko defee du tee ñi war a dem dañuy dem kon pexe gi bariwu ci mais delloo si yaakaar ci xale yi parce que sunu nguur yi fi jot jaar Macky Sall bi muy créer APR li mu njëkkee mooy dekkal ngor waaye bi mu jotee ci nguur la jël dekkal ngor teg fële indi APR yaakaar. bi mu bëggee deuxième mandat dindi yaakaar teg fële mu doon APR kase boobu la sénégalais seen xel waroon a tey ndax yaakaar la jaayoon mooy espoir alors que yaakaar mooy tax nit di dund espoir mooy tax nit di nekk mais dafa dem ba seen cycle parti sax ñu dindi ci espoir kon tey ji ñi naan président dafa war a 4 avril 3 avril wala 31 décembre waxi naa fex lañ wax président war na mën a génn ci waxtu ne wax ak peuple am Ablaye mi ngi may wan le président de la république Macky Sall mi doon wooy boppam ab républicain doon ñu jaay le parti maanaam la patrie avant le parti mais Macky Sall bu doon janook Sénégal la lay wax sénégalais yi ci jëmmam rek lay ne ci ay pexe rek lay ne nan lay reporter élection nan lay yokkee mandat nan laay tëkkoo nit ñi nan laay menacer nit ñi keroog maa ngi koy wax Macky Sall jàkkaarloo nag sénégalais yi na leen. maanaam bilan immatériel intéressé wu ma alors ci plan Sénégal émergent <laughs> le capital humain nit ki moo ci jiitu la capital humain loolu ma ki jaayoon mooy nit la ñuy defar mu nite ba pare ñu teg ko ci conditions yu baax mais ci nguuru Macky Sall la nit gën a toroxee ci dee ci dugg kaso ci ñàkkal fayda dund maa ngi fàttaliku jamono ji Antoine Diome njëkkee falu ministre de l'intérieur Antoine fekk ñu ne 450 jeunes dee nañ ci géej gi Antoine Diome bi mu ñëwee jàkkaarloog sénégalais yi xam lu mu leen wax boobu mooy le gouvernement face à la presse la woon moom nag boobooy première génnam mu ne je ne suis pas venu pour compter des morts maanaam man ñëw ma ci kanam journaliste yi. pour di wàññi ay néew moo woosam benn xarit ma ne ko ministre de l'intérieur bi de xaw ko waaye kii ci musiba lañ jëmee de kii amul xool de ay nit ñu dee ñu posé ko question mu ne non man je ne suis pas venu pour compter de morts wax ko ci façon bu arrogant yoonam nekku ci quoi alors bu doomam deewoon walla ku ko jege dina ko lijjanti ndaxte dem na fi bay masawu ab nit koo xam ne da doon jaay téléphone. kon moom dund nit ñi intéressé wu ko woon loolu xew na fi lu tax le gouvernement wala njiitu réew yi war di communiqué ak peuple yi Macky Sall initié woon na ko fi la gouvernement face à la presse amoon na fi jamono le premier ministre chaque mois mu dem assemblée nationale ci jamonoy Mohamed Dionne ñu ngi koy ñaanal bu baax kon du guléet kon damay tontu ñi naan la président warul génn. le cadre la war a génn wala lii ci ay journalistes yoo xam ne nee nañ am nañ culture général am na honnêteté intellectuelle léegi nag bu dee ni yow sa patron bi politique nga bëgg a neexal wala da nga bëgg a nekk oiseau de mauvaise augure wala yow da bëgg nekk benn nihiliste maanaam ñii daal lu def baaxul du noonu njiitu réew mi heure bu sentir ni war na génn rek na génn parce que ab Diouf daan na ko def. bu mësaan a dem visite d'état ñibbisi day taxaw aéroport ca la ko jatu si sa pose woon question ba ci Abdoulaye Wade bu mu juumul ñëw wax ak sénégalais yi lan la jëlee bitim réew parce que le président de la république xam ne li nu Macky tàmmal moo tax li Diomaye di def ni jaaxal ñenn ñi mais le président il doit parler au peuple dafa war di wax ak nit ñi surtout nga dem première visite d'état boo xam ne yaa ngi ko def Chine defoo ko États-Unis defoo ko France defoo ko Russie defoo ko Arabie Saoudite defoo ko Qatar defoo ko Émirats defoo ko Japon defoo ko Corée nga def ko Chine ak sur le plan stratégique et géopolitique li Chine di tekki ci àddina bi la deuxième puissance économique mondiale Sénégal di dem visite d'état njëkki Chine loolu président war ñu ni expliquer sur le plan stratégique lu tax mu tànn Chine parce que bi ñoom Diomaye ak Sonko di ñëw seen première wax yi njëkk mooy dañuy fexe ba def li naan diversifier les relations maanaam Sénégal du sëggati rek di nekk doomu France fu ko France jëmale rek mu jëm fa léegi Sénégal day xool kan la mën a defal ak lan mooy intérêt am mais aussi du gagnant-gagnant mais ñu gis ni suñ tekk ci àddina bi te tukki bi nag sërëcë bi duun na parce que boo nee jëlee naa fa ci juróomi fan vingt 27 milliards te amul benn contrepartie ñu ne li toll ci di signature signé nañ ko fa waaye mu njëkk ci sunu réew le président de la république se déplace avec le secteur privé national loolu du du lu ñu ñàkkal fayda parce que ñu bari dañ daan wax naan le roi du Maroc bu dee tukki ñi koy wër yëpp duñ ay politique ay investisseurs ay hommes d'affaires ay entrepreneurs ñoo koy wër le secteur privé ñoo koy wër pour ñu dem di gagner ay marché mais aussi pour ñu dem di am expérience ci yeneen réew yi parce nag ñun suñu réew mu ñu defar puso mënuñu defar cure-dent mënuñu defar lii ak lee mais bu ñu amee benn président bu dem pour xool na feneen di doxee lafa dox mu yónni yóbbu suñu secteur privé parce que réew ñu bari dañ naan nguur. mu na joxe xale yi liggéey na xale yi toog alors que nguur nguur gu la dig liggéey dalay nax ku jàngul amoo diplôme munoo dugg secteur privé nguur mënu la jox liggéey xam lu mu mën créer les conditions de l'emploi condition de l'emploi mooy mu fexe ba entreprise yi di dox entreprise yi di recruter mais boo yóbbee benn sëriñ boobu yóbbu benn bay di añ yóbbu keneen ak keneen ba secteur privé national bi mën a dox mais bu boobaa ñu mën a jël xale yi ñuy liggéey Sanjogu sax boo ko yóbbu woon tey ah mu gañe ay marché yu bari ci wàllu communication ah. ah bu yo bu boobaa du ñàkk sax mu recruter waat ñeneen ñu ñëw solution kon du ñàkk yi am na yeneen xale yu toogoon di xaar léegi ibbil na leen bunt pour ñu mën a liggéey loolu tax ñi yor privé bi di doxal seen bopp nguur foofu la leen mën a dimbalee mais nguur mënul yëkkati liggéey di ko joxe loolu tax damay tooñ sama yenn booy naa leen bis boo leen amee loo leen def ngeen dem defi ko nguur du pour baadoo la baadool lu ma ci jublu mooy ku amul diplôme amul métier amul kii kooku dangay jugal sa bopp ba nguur fekk si la nag am na looy nekk nguur moo lay mujj a fekk si soxla la dimbali la kon visite bu toll noonu bu ko président defee mu doon première visite d'État loolu jar na waxtaane mais nit ñi bari les questions politiques la ñuy xaar alors que le président il doit nous parler parce que ne serait-ce pour ñu rassurer ñu dalal suñu xel parce que tamit ñi mu jàkkaar te dañuy def la stratégie du chaos mooy nañ lépp na nasax xanaa Macky sàll bi muy dem lu mu defoon la stratégie bu terre brûlée maanaam dafa li Assane Mesere di wax na yàq lépp doog a dem loolu moom Assane moo leen ko conseillé yàq lépp doog a dem signé ay signature yu bon fal ay nit yi lii na na na na député ministre yi même booy doog a nekk ministre sax mën nañ di la fay maanaam. nommé ay nit ci loo xam ne waru koon woon def yëpp Macky Sall def na ko stratégie de la terre brûlée ngem ba am assemblée nationale bi pour ñu mën a perturber la gouvernement loolu lépp Macky Sall def na ko nga fekk fi nguur gu mel noonu war ko jël ñi nga jàkkaar loolu di nga li naan ki ba gañ la bataille de la communication gañ la guerre àdduna lépp communication la di nga gis sax ku ku ñu tooñ maanaam ku tooñ mais day wax ba yey mais mais le terrain de la communication bis boo ko bàyyee opposition bi xam ne nekk ñu sur une opposition de contribution nekk ñu sur une opposition de proposition léegi ñi ngi ci opposition wu division diversion ak manipulation yamanu ci loolu sax mais ñu def stratégie du chaos mooy nanu fexe ba mbir yi chaos am kooku le président de la république dafa war a ñëw souffler la fin de la récréation jëlaat tous les pouvoirs téye ko leen ni maa fi ne wala ni nag bu dee armée bi je suis le chef suprême des armées le gardien de la constitution le président du conseil supérieur de la magistrature kookoy président lu tax may wax lii ñi ko tuddee booy yi parce que ay booy la leen jàppe na ay booy yu xamul nguur mosuñu jot nguur da ngay dégg ñoom Cheikh Yérim ñoom ma jàmbal ñeneen ak ñeneen noonu lay waxee quoi xa booy xamuñu nguur ah booy dañuy toog a jot ci nguur xoolal ku mësul yor bureau boo moomal sa bopp ñu dénk la présidence il faut que nga il faut nga tâtonner genre communication yi da ngay seetloo seetloo daal bu ñu koy wax nag dañ koy wax mu ñàkk fayda pour que certains esprits ngaa kay ñu mën leen a am. alors que amul école bi ñuy jàngalee yor nguur Paul Kagame fa la jàngee ru nguur alors que Rwanda tey fi mu egg ci génocide la jóge un million de morts. après vingt après trente ans Rwanda presque moo raw ci Afrique alors que Kagame ci àll bi la jóge àll bi xam nañu prison la jógee Kagame ci àll bi la jóge jël nguur mbir mi vision la ak volonté pour def lu baax loolu nag day jar président génn parce que bu dee ñi ñuy xeexal dañuy utiliser les armes non conventionnelles xeex ci politique mën na ne. mais les armes conventionnelles mbiri général Kandé leen fi njëkk indi un problème très dangereux mbiri coup d'état problème bi entre un général ceci ou cela commissaire Keïta dégg ngeen ko président ak imagine un président de la république ku ko fekk palais di xeex ak moom après ñu bàyyi la nga génn dem koi wax ji nit ñi da koy tuuteel mais lu grave la li président Keïta wax amul benn nit bu osé dans le monde taxaw wax ko commissaire Keita maanaam créer chaos ñu jóge ci loolu ñu ne non le président de la république ak le premier ministre ñoom daal seen diggante ak bi dañoo bëgg a teg presse nga gis presse bi utiliser arme non conventionnelle mooy nanu fexe ba tas yàq deru réew mi yàq deru président bi fi ne après cinq mois pour wan àddina bi ni ñii ci wàllu démocratie duñ ay démocrate ñu def journée sans presse alors que li ñu waroon mujjee loolu la loolu la ñu tàmbalee loolu tax ma ni nekk ak soxor baaxul en voulant tout faire mal on risque de sa faire mal maanaam boo soxoree maanaam sa doom boo koy dóor am na nooy néegee pour dóor ko mun nga ko dóor nga gaañu yow. loolu moo dal ñu bari ci Sonko ak Jomaay maanaam dañuy bëgg a nappaaje leen nappaaje leen nappaaje leen mais après soxor bi ñu ciy àndal ak xol bi mooy tax ñoom dañuy gaañu boo xoolee presse bi ba tey ji mi ngi faju alors que am na lu dal di ci dal man je suis avec la presse mais nan waxtaanoon ci dal mais dañoo bëggoon a toroxal réew mi toroxal sonk ak Jomaay ñi ko doon def tey ji gaañuwuñ ci dara. ñu jóge ci loolu ñu ne doxul ñu ne nanu fexe ba léegi dugg ci këru diine yi avant këru diine yi église bi moo njëkkee te avant église bi li njëkkee mooy mbiru góor jigéen yi Sonko dafa dem ak Mélenchon wax li muy wax ba pare nu détournu wax ci parce que dañuy jël les questions les plus sensibles yoo xam ne di Sénégal amul ku ànd ci góor jigéen mais boo nee première premier ministre day kañ góor jigéen wala day def apologie homosexualité ni da leen di toléré mais loolu da ngay laal xol yëpp te loolu lépp te juste pour faire mal à Sonko jaxase ak sénégalais yi ñu jógee ci lool ñu utiliser église bi mooy wax na ci muuraay wax bu gàtt ñu ne non église bi lay joteel ba ak ab bi jug tontu ko yamatu ca sàllalu sunu sang rasulillah ji nga question yi mu lay wax c'est les questions dangereuses homosexualité mbiru diine entre chrétiens musulmans yoo xam ne ci yeneen réew yi kenn du ko laal daa am yoo xam ne même boo ko yégee doo ko laal da nga koy yëg mais da nga naan teg mi ngi mel ne mbiru Casamance boo ci wax doo ci sori ci guerre bi am Casamance MFDC daf ci am yaa di truc yoo xam ne ñun ñëpp dañ ci déggoone nañ ci ànd doon benn mais ñoom dem nañ ba xotti yooyu pour faire mal à Sonko et Diomaye yamatuñu ci loolu ñu ne Touba ginnaaw yàlla Touba électorat moo fal Sonko ak Jomaay parce que lépp lu ñu sàccoon sa Fuuta gars yi dañ ko dabu ca Touba looloo tax yenn saay manaan Touba lépp lu leen nguur gi defal ci wàllu ndox courant lépp entreprise investissement mérité nañ ko ndax na nag changement bi bu amee à 54 pour cent Touba génn ci lu am solo loolu lu ñuy nangu la la population de Touba ñu ne non ñu ngi jëm législative parce que ñii nin téye Touba nguur mosu ko téye tubaa pourtant Abdoulaye Wade taalibe la woon mais Abdoulaye Wade te jekkowul woon nii tubaa ñu ne non ñii nag il foog que ñu wax ak ñoom parce que ñii buñ gañee réew mi jël tubaa teg seen loxo jël Ndakaaru teg seen loxo jël Ziguinchor teg seen loxo jël Thiès teg seen loxo mais ñii Fuuta moo leen dese te ku gis li Sonko bi mu jaaree Matam bi man dama jekki man dama foogoon affaire de échecs ah pour dire la vérité connaissant ñi dëkk foofu mais mbooloo ma ko fa dar ba Sonko na leen yéen a jël ndam li ci set setal gi mooy wane ni gars yi ci récupérer Fouta lañ jëm mais léegi ñu jëm ci ay élection ñu ne noonu digganteew ak Touba ak ni muri di xere parce que Cheikh Omar Diagne ñi ngi wax ay waxam mais bi muy wax wax ji ci tarixa yëpp la ko wax mais <laughs> mi ngi noonu mais muri di jël ko def ko xeex li léegi yan murit ñoo jël jëf ko xeex du ma ci dugg du ci sori mais mbir mi mi ngi njëkkee ci lettre bi na ca Omar Diagne signé ne ko ay ganu ñi doon ñëw ci màggal gi ñu jikko foofu indiwaat ay waxi Cheikh Omar Diagne yoo xam ne ba mu ko waxee tey jii kenn xamul nu mu toll jamono jam koy woo waxuñu ci ñu indi ko benn presse lépp benn presse moo koy def ànd ci ak ay nitam yoo xam ne ay lobby ñoo nekk ci seen ginnaaw man bari na ci ñi xeex xeex bi remarqué naa leen Antoine Diome la doon àndal te li Waly Diouf Bodian doon wax dëgg la Abass Fall di ko wax dëgg la man ñoom la àndal ay Fadilou kayta li wax dëgg la wax ju neex mooy gars yi ñu ko séqal opposition bu bari xaalis lan <laughs> gars yi dañoo yor te tey jii li fi yëngu yëpp xaalis a ko yëngal de gars yi Sonko ak Diomaye dañoo ñëw tëj romine yi dóor impôt yi convention yi ñu arrêté ko yemuñu ci arrêté convention yi mais lijjantikat yi nekkoon ci réew mi lan doon lijjanti doxatul parce que réew mi bariwul liggéeykat ay lijjantikat la am mbëkkkat yi ni ko Sonko di waxee dafa bëri ay mbëkkkat léegi mbëkkkat yooyu nekk ci réew mi nag jamono dunoo mbëkku ñu ne nag reculer pour mieux sauter ñu ut yeneen stratégie est-ce que ne opposition bu bari xaalis bi Macky Sall ak alal jamu yor keneen ak keneen est-ce que nekkul ci ginnaaw lii parce que gars yi il ñu lijjanti kon lu mel noonu bu amee ma daaneel kon dafa jot nguur gi taxaw di communiquer di wax ak sénégalais parce que boo waxul dal lay waxal parce que ñii ma gis li lim leen jaral bari na koroog manqué yox bu réew mi nekkoon benn bomb bu ñu téye. ñu ne buñ ko bàyyee réew mi tas ñëpp yam ci gëm naa ni am na ñoo xam ne bu nekkee seen loxo ñu bàyyi ko kon tas assemblée bi dafa jaadu nan ko tas jàll ci leneen tabaxaat beneen république am constitution bu bees ngir que li ñëpp bëgg mu am foofu lañuy taxaw kon euh, di jégalu ñëpp di balu ak ñëpp képp kuñ fi tudd rek te neexu la ngi lay jégalu bu baax di ñaanal ñëpp jàmm ab du toog ab lay ak euh, Fallou El moo du ñoo nekkoon ci régie bi Omar Bun Khattab Gueye ci kàddu gi kon euh, beneen alxamis incha allah ginnaaw gàmmu gi ñu dellu siwaat di ñaanal ñëpp moo lu lul nabi jàmm ba beneen yoon incha allah